ay ca doore ko sëriñ Muntaxa Mbàkke si laas yéene mu ngay yëkkati ay kàddu de kàddu yi dama ne maa ngi ko jagleel waay politique yi xalif baay wax de nee bëgg nguur dama ne ci kaw suuf warul mën a tax nga tay la sa bakkan ñu ne déetawaay ngay sacrifier ay doomu aadama ne dal seen kaw ñoo xam ne ni seen yoon nekkul si sa bëgg-bëgg yow sëriñ Muntaxa Mbàkke nee na bëgg nguur jarul loolu ñu ne waay nga yàq seen ak moomeel sëriñ bi nee na bëgg nguur jarul loolu al Muntaxa ci tribune yéene kaay mu ngay sàkku ci askan wi ci boppam rawatina waay politique yi ñu dox si lu andi jàmm dox leen ci laa wax lu andi jàmm tey jéggale le regard kay feelu ko ca wet ga nee na xalif bi ci boppam yóbbante na ay kàdduwaay politique yi la fatwa de Serigne Mountakha aux hommes politiques nee na dee leen jéggale de dee leen jéggale il faut cultiver le pardon deel jéggale yow mi nga xam ne yàlla dogal na kon yow la jël nguur tekk sa loxo waaye yow mi nga xam ne it yaa bëgg yootu nguur deel jéggale tey dox si lu andi jàmm al Mountakha nee na réew mi sunu réew la de kon nag sunu wareef la ngir ñu dox si lu andi jàmm le peuple quotidien ne lii rek nag mooy sàkkutee fuk al Mountakha les recommandations de Serigne Mountakha waaye politique nax daal dox jàmm te ngeen xam ne kon réew mi moom leen ko ñun ñoo ko bokk moom kon sunu wareef la ñu ñëpp laa la wax lépp ñëpp la ngir nag ñu dox si lu saxal jàmm ci réewum Sénégal xalif général Kulumbur ci Vox Populi nee na bàyyi leen xel bu baax nag njàngale maam borom Touba le temps moo yéene kaay te muy dëgg màggalu Touba gi de cérémonie de clôture ba Serigne Mountakha mu ngay sàkku ci taalibe yi ñu bàyyi xel bu baax njàngale maam Bamba Cheikhul Khadim Sud Quotidien ne lii rek moo nekkoon na xutba Serigne Mountakha Mbacké woote jàmm nee na réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon yéen autorités yi yéen classe bi dox leen si lu andi jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ka gën foofee la source a génn sëriñ Muntaxa Mbàkke plaide pour la culture de la paix et du pardon jéggale rek yow mi yor nguur del jéggale yow mi bëgg a nguur xamal ne yow yeewu fitna waru la le soleil yéene kay ne borom mbégte mi da jàppale ne kon jàmm la woote l'appel à la paix de sëriñ Muntaxa nguuruk Sénégal si le soleil yéene kay ne na chantier yi nga xam ne sumb nañu ko si Tuubaa googee dañu koy wéyal de aha kay tànki kanam la am doo ginnaaw bugaan ngay dañu si turbine yéene kay ne yéen a ngi doog wax nag yéen a ngi wax li andi gàllankoor laalaw màggal gi jafe-jafe yi askan dund nee na 14 milliards ngeen foog ne ngeen investir ko ci Touba nii at mu jot am ngeen dam juum ngeen yéen a ngi doog a wax lii tax askan wi dund jafe-jafe yi si diirug fukki at ñaar bugaan gi dani moo wax si turbine yéene kaay si 15 yi nga xam ne mooy budget d' investissement yi laaj ma Touba la ma ci am laaj ma nguurug Sénégal lu mu dugal sa Touba googee 160 milliards lii rek la ngornement bi dugal sa Touba ba noppi di ka bàkkoo juum ngeen Touba si wàllum muy tekk ci réewum Sénégal Touba la muy màggee laa la wax ci ay doomu aadama dama ne mérité na leneen lu dul 1 wax Bougane Gueye Dany mooy wax l'exclusif dina dikkaat nee na màggalug Touba gi de Bougane Gueye Dany mayul dara nguurug Sénégal nee na investissement bi la ngeen ci cërale Touba néew na laa la wax ni Touba avec ses deux millions d'habitants par an Bougane Gueye Dany làbbaliwaat ci l'évidence yéene kaay mu ngay sàkku ci président Macky Sall de mu bàyyi xel bu baax kàdduy Cheikhul Khadim aha kay njàngalem Cheikhul Khadim maanaam jéggale ga man jëf nga jéggale na président Macky Sall bàyyil xel yooyu le kàddu de yootul critique yéene kaay teg ca l'info njàmbaat sa l'indépendant Bougane Gueye Dany nee na neexul ba neex nag waaye nguurug Sénégal war na xoolaat ak doxalinam fii ci Touba laa la wax koppar bi mu fi dugal budget Sénégal na mu toll mu coppati sa un pour cent laa la wax dugal ko ci Touba ba noppi di ko bàkkoo yéen a ngi doog a wax jafe-jafe yi nga xam ne taalibe yi dund nañu ko si Touba lan moo ko waral dama ne xoolaat leen seen ak doxalin Touba mérité na leneen lu dul lii critique yéene kaay nekk xanaa doo xool Bougane dama ne assainissement wàllum ndox ak santé dafa mel ni président Macky Sall am na sa ndam sa Touba de dama ne am na sa ndam ndax ministre de l'intérieur def na bilangam wax na la ñu liggéey sa Touba Bougane Gueye Dany si léefo yéene kaay daal di koy toon tontu nee na ko demal nga toog nguuru Sénégal muy bàkkoo un pour cent si lu jógee seize mille milliards budget d'investissement mu dugal ko Touba lii lay bàkkoo yéenay gàcc la la wax nañu bàyyi xel doxalinu murit yi ci wàllum koppar wan leen yoon bi de xanaa kay ñëw tënk xam lu tënk xam lu googee yéene kaay nee président Macky moom la def ba fii nag waxul kan mooy candidat bi Benno Bokk Yaakaar kenn xamul waaye tànnee fam dafa mel ni contesté nañ ko te waxagu ko l'observateur di ne ñoo bëgg nekk candidat ci biir Madiambal Diaw Aly Ngouille Ndiaye ba ci Amadou Ba campagne bu désordonné ngay am foofu gaañaa nga ca affiche sa bracelet ña ndax dana resté Amadou Ba ndax dana des di doon ilimaanu joriñ yi ndax remaniement mooy xeeñ de remaniement ministériel tëggaat gouvernement bi mooy xeeñ Amadou Ba ndax day des lanket yéene kaay ne damay laaj dong rek le point actu ne man li may laaj moo di Farba Ngom ndax président Macky Sall bu tànnee moom dana topp ca ginnaaw tànneef ga ndax nag umpul kenn ne kon président Macky Sall ba muy dem sa Touba Farba Ngom àndu sa Amadou Ba ci boppam àndu sa te ñëpp xam nañ ne moom Farba Ngom dafa assumé ak àndaama Amadou Ba le point ak tu ne lii rek moo tax may laaj nag bu fekkee président Macky Sall tànn na keneen ku dul Amadou Ba ndax dana sa topp laa la wax damay laaj rek nag suur su ne kon desal si candidature yooyee ndax nag waa Pastef fu mu nekk nii wala Pastef ba a kan ngir xool nees mën a de engagé nañu ko waaye ci suuf na interne def nañu ko póotum biir ñu ngi koy waxtaane de boo leen bëggee dégg-dëgg ani kan mooy doon candidat bu Pastef ba woon kan mooy wutu Ousmane Sonko damay laaj rek nag suuf su aane ñu ngi koy waxtaane seen ruq mën a kan lii jëre laaj kay bokk subab li nee na mooy mbëkk mi mbëkk mi nga xam ne xale yaa ngay faatu marine nationale di oñ ñi rek waaye terewuñ na ngay mbëkki rek de vox populi nee na 242 ci ay na si diirug ñaari fan rek junn ci ay candidat yegg nañu sa Espagne mujj nañu dugg laa la wax ni ña ngi ca Espagne de Les Échos yéene kaay ne kaay ma wax la kon lii dal waa Prodac ah kay seen compte Facebook dañu ko piraté boo fa duggee de doo gis daraay Prodac dama ne ay image yu nga fay gis moom lañ fa publier de Prodac amu fa de image yu porno fa am Les Échos yéene kaay ne moo taxit nag sabotage la défaillance interne la incompétence la ou cyber attaque lu mu ci mën ti doon porté nañu plainte maa nga ca làmb ja sunu na Modou Lo Boy Niang 2 kale nañu ngook cadeau fin d'année 2024 Modou Lo Boy Niang 2 de kon mu